الحمد لله وعدا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله بوك تلسبكتاتور مريد إنفو من مام أوجف ما دكاتي تي آه. سين إميشون ما لين جهون ديك دجي تي سين إميشون جيكو تاي نك دانيو نيواتي تاي سيني تيم بو نيك تي مبيرو سي سي نك دون لو خامتيني سي لو ام سولو sëy bokk ci ndigal suñ borom yi tabaraka wa taala ndax kat suñ borom ngay wax ci alquran nan fankihu ma taabalakum mina nisa kon lolu tektal ni sey dafa bokk ci ndigal suñ borom tabaraka wa taala bokk ci sunna si bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax buñu jangé ci hadis ni netle ci ben hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nan jaa salasatu ila buyuti nabi sallallahu alayhi wa sallam yasaluna an hibadati nabi sallallahu alayhi wa sallam فلما أخبروه كأنه تقالوه فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل ولا أرقد وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتخاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني buñ nga tekké ci olof moy yonent bi eh, dafa am ñett ñoo xam dañoo ñëwoon ci kër soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gëstu naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jaamoo boromam biñ ko ko waxee biñ leen ko waxee ñoom ñett ñooñu ñu mel ne ñoom dañoo xeeb seen bopp ni ñoom kat bokku ñu yonent bokku ñoo yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi sallallahu suñ borom jéggal ak bàkkaar yu mujj kenn ci ñom dogu ni man de bis ni ki dina dinaay fanane julli guddigi yep ta duma noppal ki ci des ni man de dinaay wor ta dootuma dog ki ci des ni man de damay sangewu dootuma denc soxna bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam degge lo tak bimu dikke mun len yeen yena wax nangam ak nangam ni len ma ngi gin ci yalla ni ma len gën ragal yalla ta man damay julli damay noppal damay wor tamit damay dog damay denc soxna muy lolu mo ci eppal solo muy damay denc soxna kon soxna sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen fa man raxiba an sunnati fa laysa minni képp koo xamante ne si ni du mooy nga sama sunna kon bokkoo ci man kon sëy dafa bokk ci sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam li ci ëppati solo mooy sëy jamono ji ñu toll bari na lool neewaa na nga dégg nga toog ay bis te déggoo ñu ne diw kat may nañ ko soxna wala diw kat may nañ ko boroom kër ndax ñooñu noonu waajal nañ leen wax leen lan mooy sëy ba pare bala ñoo dugg ci sëy ndax sëy jaamu yalla la te ñu ci bari dañ ciy duggé par amour aha kay amour ci ci la bokku munu ci ñak ndax nit ko bëggul do ko seyel nit ko bëggul do ko tarbi ba man ci am doom yu baax ba man ci am tamit njaboot yu barkel kon nak ki dugg ci sey na xamni li yalla mako digal ndax sey bari na lool waye tamit contraire ba tamit bari na lool muy divorce bi di tassi mi ngi bari lool li nga waral waju luñu jikko yi ndax tay da ngay tak sa soxna nga dem ba ci digg ba gisoo jukko bu neex bu nekk jukko la nga doon séntu ci moom gisoo ko ci moom man na laa ñàkkal sa ndax xam nga ñun jigéen ñi moom mooy loolu dañoo xaw a doy waar ñu ci ëpp dañoo xaw a doy waar moo tax boo demee ba ci biir nga xool soxna si fekkoo ko ci da nga da ngay jël sa xol bu tàng wala nga ne kii kat maa ko takkoon waaye dama koy wàcc ndax dafa rey wala dafa xamadi dama koy wàcc mu dellu kër yaayam jigéen yaa ngi fi ne xas mën naa wutaat beneen soxna teg ko ci kërëm kër gi mais du noonu say jaamu yàlla la boo gisee noo xamante ne sii nii melu ko ni mel neexu la muñ ko ta xam ne kii kat suñ borom moo la ko dénk dañ cee war a jaamu yàlla. ginnaaw loolu tamit sëy bu amee bala moo am ngoro mooy njëkk. ngoro nag buñ ko waxee ñeent la muy sa mbokkum ndey mbaa mbokkum baay wala jikko ju yàgg dëkk bu yàgg bu la jikkoom neex wala ku tëj say mbokk nga tëj say mbokk loo ca fekk ba ko ca loo ca gis tamit muñ ko. kon nak bala ngoro di am da ngay xol ku bax yow mi du gor war ngaa xol kan mo nek sa yaay dum ëllëg ndax kat am sa dom ñu di wax ñuy wax ci mom nan ko yaayam ko mo fi defoon lu ñaaw ni wala baye mo fi defoon lu ñaaw ni lolu man na kon jigen ji tamit war naa tan kan moy baye dom ëllëg boy tan nak war ngaa burum ci ko ju bax burum diine ndax kat li gëna ñaaw moy am sa dom ëllëg ñu di ko ci mbedd naan ko sa baay kat moo fi nekkoon di naan wala sa baay moo fi nekkoon di sàcc loolu lu ñaaw a ñaaw la te yow mii di góor nga ni dangaa bëgg am doom ju baax ba pare dem ci mbedd yi xool nit koo xamante ni sii day taxawaal nga takk ko indi ko ci sa kër ni doom ju baax ngay sàkk doo ko am ah yàlla de mën naa dogal waaye xel nanguwul lool ndax olof Njaay dafay wax naan xéwal lu tëb doom ji bët te lépp loo nàmp moom ngay tàqamti ko kon nag boo bëggee doom ju baax danga koy jaarale xool ndey ju baax koo xamante ne si ku am diine la ku toog ci wetu waajuram nga denc ko takk ko indi ko ci kër gi ginnaaw loolu tamit ñuy dëggal suñ bokk jigéen ñi nga xamante ne si ñu ngi dugg ci sëy ñoo xamante ne si jëkkër du moroom sang la dañ koy tarbiyu léegi nag bari na lool ay xale yu ndaw ngay gis ñuy ànd muy soxna ak borom kër da ngay gis xale bu ndaw mu takk euh, soxna xale bu ndaw tamit doon euh, soxnaam mais loolu bu mu la jaaxal kii di sa sa borom kër nu mu ndaw ndaw ndaw sa sëriñ dang wara wara a tarbiyu ndax yonente bi salallahu alayhi wa day faral di wax nan su fekente ni si jigen ji dafa borom kërëm gërëm ko dina dugg aljana kon lolu rek warna tax kep ko xamanteni si am nga borom kër nga sam ko bu baax baax samal ko ñettam yi moy nga samal ko bakkanam ba du fum du noy du xéñtu xet gu nakari nango samal tamit ba du lek lu nakari waye tamit nango samal posam sàmmal poosam bul yàq xaalisam ndax kat dafa sax ci xol so jele sa borom keur di pasar hal xal ya, sam ko yakal man na la en kon fofu enel man na fa am nit tamit man na xif bu xife tamit day nakari dare kon samal ko biiram ba bala mo xif nga jox ko mu lek xet gu nakari tamit kenn bëgg kon sa borom keur de ko samal bakana ba fepp lepp lu mi xenc ci yow rek don xet gu neex yow mi ci keur di tamit di serign di bay ndax ki nga si ni mu joge keur ndayam ak keur bayam baye yaayam baye papam yow tamit am nga devoir bu mag na nga sàmm sa jabar na ko aar na ko suturaar te xam ne jigéen moom matut ki nga xamante ni si dañ koo jël muur ko guddi ci lëndam indil la ko sa kër xamal ni kooku matut yow yaa ko war a mottali yaa ko war a yërëm yaa ko war a euh, wodd yaa ko war a aar war kaa suturaat dimbali ko te yàlla rekk tax te xam ne kii bàyyi na euh, ay famille ñëw ci ci yow dee ko dimbali bu fekkente ne si tey dafa jàdd woo ko yedd ko diko ko lol loolu dina ci bax lol suñu ko defé kër yi man na neex man nañ ci am ay njabor gu barker kep kuy sey tamit na nga fas yene muy jigen nga fas yene ci sa xol roy ci soxna jaaritullah wala nga euh, roy ci soxna mariam euh, jigen ñu bax ñu bari nañ lol nga roy ci ñom ndax kat soxna jaaratullahi bu sa mom dafa dogu won ni man dina fi dina fi jur jant kon mi ngi ni jur na fi asaman mo mur ñun ñepp kon nañuy roy ci ñoom ñooñu ñooy suñuy euh, exemplaire ñooñu lañ war a roy mais jamono jii ñu toll jigéen ñi ñu ci bari dafa mel ni dañuy wuyoo murit gi ak dañuy wuyoo jullit gi waaye dafa mel ni dëgg-dëgg nekkul ci ñoom ndax royuñu soxna jaaretullaahi royuñu soxna Mariama euh, euh, soxna Mariama royuñu soxna Mama Bousso jigéen ñu baax ñu bari nañ lool mais royutuñ leen léegi ñu ngi ci ay. ñoo xamante ne si leer na ne ñuy bokkoo leen na ñoom diine nga di leen roy ci seen solin di leen roy ci seen doxin di leen roy ci seen waxin di teg ay greffage yoo xamante ne sii macha allah seer na lool ñu ay plus de cent mille deux cent mille di ko jëndee di ko def sa bopp di roy kooku te ñun suñu diine islam daf ñoo digal ñuy muuru kon muuraay ci boppam dafa am solo ci doomu aadama ndax jigéen ji nga xamante ne si dafa jël kol muuru romb ak ki nga xamante ni si dafa sol jupe bu gàtt wala mu sol yére bu ndaw buñ àndee ci mbedd mi jigéen ji muuru la ñuy gën a respecté kon xale yu góor nga xam ne dañoo mën a tooñ suñu rombee ku muuru duñ ko duñ ko ñimee tooñ sax ndax na mu muuroo la donte ka yow jigéen ji sax am nga la caay-caay boo làq ci sa biir sa habillage moo lay aar ba nga xamante ne si kenn du la yab kon jigéenu julli dafa war a muuru dafa war a yiwee ndax loolu lañu suñu lislaam sant waaye nag jamono ji ñu toll ma dafa mel ni seytaan daf ñoo këf lool ñi ci ëpp li leen di neex mooy ñuy teg greffage di def bopp neen te sa bopp neen li ci gën a danger mooy soo koy def jinne di mën na laa faat ay feebar yu bari yoo xamante ni si danga koy dégg ay jinne ma faat ak ay rab ak yooyu yëpp ñàkk aar sa bopp moo koy kii moo koy waral te sax jamono ji ñu toll or mu ngi nii lu am valeur la danga koy gis dañ koy def ci euh, verre defar ko ba mu rafet di ko jaayee njëggu seer noonu la jigéen seeree. jigéen dafa war a muur boppam nga xamante ni si du jaay boppam ci mbedd yi ndax ma marchandise suñ borom la yow jigéen ci yaay jigéen ñi ñooy jur wàll yi ñooy jur xut bu sama ñooy jur ñu baax ñi kon kooku magasin yi suñ borom la tuba tabaaraka wa taala lépp loo xamante ni suñ borom da koy dénkaane ñoom da koy dénk te suñ faale mi ngi daan wax naan am na ay wàll yu nekk ci kaw asamaan waaye jigéen ñu baax ñu jël bi ñu leen jaarale moom lañ amut kon ñun jigéen ñi nga la nañ dogo ba ñi nga xamanteni walu ñi nga xamanteni ñi ngi ci kaw asman ñu jaarale ko ci ñun ma leen di denkat bu baaxa baax ñu gëna fonk wajuri bu baaxa baax suñu tem tay ka ci sey la jëm waye duñ ci mëna ñak wajuri ndax waju dafa am sol ci doomu adam waju dafa sonu ci doom ndax waju ba nga nekké xalé ba ni nga maggé kon ku wara fonk wajur lañ ndax bu suñ borom bu sa wajur gërëmé suñ borom dina la gëreem kon nañuy fonkat wajuri bu baaxa baax di leen deggal ndax jamono ji ñuy toll ñu ci bëri seytaan def leen a fëkk ñu du mooyu seeni waajur mais loolu lu danger la ndax ñaan bu baax mi ngi jóge ci waajur di leen wax nag di leen jégalu bu baax a baax ki leen doon présenté seen émission tey mi ngi nekk mam mu ngi tudd Mame Awa Diouf Touba Darou Minam ci fii ci seen site internet Mourides Info di leen jégalu bu baax a baax di leen wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen